أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi dellu siwaat nañ ci waxtaan wi ñu leen tàmm defal muy benn càbb bu ñu leen di wittal ci jamono yu nekk ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey dellu si nañ ak yéen ci hadis bi nga xam ne buxaari ak muslim solo nañ ko abdullahi ibnu omar nettali ñu ko ibnul xataab radiallahu anhu muy hadis bu jar a teewlu hadis bu jar a déglu hadis bu jara bàyyi xel ndax dafay waxtaane ci ngëneelu jëf yi nga xam ne doomu aadama daf koy def te yàlla rekk a tax waaye bala ñu dugg ci hadis bi comme niñ ko baaxoo def ñun ak yéen ñuy bokk di ànd di doxant jëm ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tool bu jara dem pàkk bu jar di toog di féexlu di noppalu di ubbi ci say nopp ubbi sa xel ubbi sa dënn ngir keppaar boobu tool boobu doomu aadama du fa dugg ba génn lu dul dina fa jële yiw lu dul dina fa jële njëriñ lu koy jëriñ àdduna di ko jëriñ àllaaxira abdullah ibnu omar tey bi ñu àndee doxantu ñun ak yéen mbokk yi ba ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci toolam boobu mooy rawdaam boobu ñu fekk fa sahaaba bu màgg bu mu daan àndal ci dundam mu tudd abdullahi ibnu omar ibnu alxataab doy na rek abdullahi ibnu omar ibnu alxataab ngeen xam ne du ku ndaw ndax omar ibnu alxataab mooy baayam te qurayshi la radiallahu anhuma moom abdullahi ibnu omar bokk na ci ay melokaanam dugg na ci lislaam ca makka mook baayam ci jamono ja muy dugg ci lislaam boobu xale la gàddaay na ànd ak baayam jëm madinatu munawwar moom abdullah ibn omar bokk na ci kàngamu sahaaba yi sahaaba yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen yar ci xam-xamam waaye bokk na ci ñi nga xam ne dafa ëpp ci lu mu ro lu mu solo ci ay hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom abdullah ibn omar ku dëdd woon àdduna la fekke na xandaq ak lu nekk ci ginnaaw xandaq dund na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom benn dund na ginnaaw yonent bi saa salaam juróom benn fukki at muy ubbi nit ñi ci jaamu yàlla di leen jàngal nu ñuy ajee moom abdullah ibn omar mu ngi faatu ci atum juróom-ñaar fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom abdullah ibn omar ku toroon ci sunna la ku bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la moom day ku wexoon xatt la ku safoon sàpp la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaw ko foye te saa yu gisee kuy fooyee sunna yonent bi daf koy embargo woon ko ginnaaw moom Abdullah ibn Omar keroog ba ñu doxantoo ànd ak yéen ñëw ci dëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jardin bi Abdullah ibn Omar lañ fa fekk keroog yóbbal bi la ñu jox mu nañu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kaana qablakum xatta aawaahumul mabiitu ila gaarin fa daxaluhu nee na ca jamono bu njëkk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon nañu nettali mu ne ca jamono bu jiitu amoon na ñetti nit ñu àndoon dugg ci àll moo xam dañoo amoon soxla ci àll ba moo xam dañ doon doxantu moo tax dañ doon moo xam dañ doon dox seen soxla ñoom ñett ñooñu daal ba ñu duggee ci àll bi guddee nañ fa ba ñàkk fu ñu fanaan ñu gis am xunt am pax mu xóot ñu daal di fay dugg ngir fanaan fa ndax keroog dañoo gudde woon ca àll ba waaye yàlla nattu leen keroog ba ñu duggee ca xuntuma ca xeer boobu fas yéene faa fanaan fan xadarat saxratun min al jabali fa saddat alayhimul xoor ba ñu duggee ci pax ma fas yéene faa fanaan ba guddi jot ba guddi gi xaaj am xeer wu bërëngu wu rëy daal di ñëw fatt bunt bi ba yàlla def na ñoom mënatuñoo génn ñu nekk ca biir ca biir pax ma ca biir xunt ma xeer wi fatt na bunt bi ba ñoom mënatuñoo génn léegi lu xew ñu waxtaan seen biir ñu gis ne tey puus xeer wi du leen musal ndax amuñu dooleem ndax xeer wi rëy na suñu yuuxoo nit ñi duñ leen dégg amul kenn ku ñu wan a woo ku ñu mën a sukkandiku tey rek ba ñu mucc ci lii ku dul seen borom tabaraka wa taala moo tax ñoom ñu ne innahu laa yunjikum min haadihi saxra illa an tadau llaha bi masaalihi amalikum tey de yéen na ngeen yëg amul lenn lu leen mën a musal ci xeer wii tey pour ngeen génn dellu ci seen njaboot delluwaat dox ci seen liggéey lu dul seeni jëf yu baax yu ngeen doon def ngeen jokk ci ci yàlla tabaraka wa taala yàlla xool ci jëf yooyu musal leen tey ci doj wi ah kenn ci ñoom daan ne fa qaala rajulun minhum allahumma kaana li abwaani shaykhayni kabiraani wa kuntu laa aghbiqu qablahuma ahlan wala maalan yàlla man day amoon naa ndey ak baay ñu nekkoon ñu màgget waaye day daaw ma reer lu dul ñoom ma jiital leen ba ñu reer ba pare sama njaboot doog a reer sama soxna doog a reer ma doog a reer benn bis nag guddee woon naa àll yàlla bi ma ñëwee di leen jox seen reer ñëw naa fekk ñu nelaw ma téye reer bi ndax bugguma leen a yee di leen yàqal seen nelaw samay njaboot la ngaamu samay tànk di yuuxu ma téye reer bi yàlla ba bët set ba bët setee ma jox leen ñoom ñu doog a naan soow ma nga xam ne moom laa leen rattaloon ba ñu naanee ba pare ma doog a jox samay njaboot ñu doog a naan yàlla day bu fekkee loolu ma defoon yow rek yow yaa tax ma def ko jiital samay njaw samay wayjur ci sama samay doom ak sama soxna ak sama bopp bu fekkee yàlla yow dong bëgg sa kontaante moo taxoon ma def loolu ay yow yàlla maa ngi lay ñaan xeer wi yal nañu ko yal nañu ko àndalal allahumma in kuntu faaltu zalika ibtigaa wajhik farrij anna ma nahnu fihi min hazihi sahra yàlla bu fekkee loolu ma defoon sa jëmm dong nga tax ngir bëgg sa kontaante dong nga tax yàlla maa ngi lay ñaan nga wuññil ñu nga dindil ñu xeer wi ba ñu mën a génn bi loolu bi waa ji waxee loolu xeer wi daal di yëngatu tuuti ba ñuy seen lumière waaye mënuñoo génn waaye ala kulli xaal waa ji ñaanam bi mu ñaan yàlla nangu na ko ndax xeer wi puus na tuuti ba ñuy seen lumière. ñett lañ woon kenn ki moo wax loolu mu des ñaar keneen ki ne allahumma innahu kaana lii ibnatu ammin kaanat ahabbu nnaasi ilayya wa fi riwaaya kuntu uhibbuha ka asaddi maa yuhibbu rijaalu nisaa yàlla man day amoon naa sama doomu baay tax bu jigéen bëggoon naa ko lool am na riwaaya bu mu ne bëggoon naa ko lu raw li góor di bëgg jigéen waaye nag demoon naa ba bëgg a faw ak moom ndax dama daan bëgg faw ak moom guddi ak bëccëg ndaw si bañ guddi ak bëccëg maa ngi ko topp naan ko dama laa bëgg dama nangam nangam di yëy noppam di tourner xelam di tourner léppam ndaw si daal nay bañ ne du fo ak man fam tanaat min nii mu lànk ne du du ma déggal du ma topp ci loolu ma koy wax xatta alamat biha sanatun min assinin ba benn bis nag ndaw si métti jàpp ko aduna jàpp ko jamono jàpp ko xiif jàpp ko mu daa di ñëw wax ma problème am wax ma boppam ma daa di koy jox alal ma daa di koy jox xaalis mu nangul ma léegi li ma bëgg a def ak moom ba ma nangulee li mu bëgg a def ak moom dara desu lu dul futti naa ko summi naa ko ba mu set tëdd naa ci kawam ba fas yéene gi ci kawam mu daan may wax wax ju doy waar mu ne ma ragalal yàlla ci man xoolal yàlla ci man bul dindi sama ndaw bul dindi sama ndaw yow waa ji ragalal yàlla mu ne ma daal di jóg ci kawam ma tiit ma jóg ci kawam yow yàlla bu fekkee lii ma defoon yow rek yow yaa tax yow yàlla maa ngi lay ñaan xeer wi yal na nga ko àndal yàlla tabaraka wa taala daal di def xeer wi mu daal di koy àndal xeer wi daal di àndu xeer wi daal di puus mu ne yàlla ndeysaan xeer wi daal di nay puus yàlla nangu na ñaanam moom waa ji ku njëkk ki yàlla nangu na ñaanam ñaareel bi yàlla nangu na ñaanam mu des ñetteel bi ñetteel bi daal di ñëw daan na yàlla man de am na ñoo xam ne koo xam ne dama ñoo xam ne dañ ma doon liggéeyal liggéeyal nañ ma ba weer dee fay naa leen mu des kenn koo xamante ne fayam dafa dem bàyyi koog man ma jël fay bi ma jënd ci ay xar jënd ci gëléem jënd ci ay nag mbir moomu daa di jur daa di fees dell daa di bëri xur wi ma toog ay at rek waa ji daa di ñëw ci man ne ma xàmme nga ma ma ni ko déedéet mu ne man nga liggéeyaloon man mii nga liggéeyaloon léegi nag sama fay laa jël si ma ni ko xoolal xur wi yépp jur gi yépp yow yaa ko moom waa ji daa di buub jur yëpp daa di koy yóbbu bàyyi lu ma benn mbote yàlla bu fekkee loolu yow yaa taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan yow yàlla tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan yow yàlla tabaraka wa taala xeer wi yàlla na ñu ko ubbil bi waa ji waxee loolu rek xeer wi daal di bërëngu ñoom ñett ñëpp ñu daal di mën a génn mbokk yi ñett ñii yàlla nangu na seen ñaan jokk nañ ci yàlla ci seen jëf yu ñu defoon maa ngi lay laaj maa ngi lay laaj yow mii di ma déglu yow mii di ma dégg bu doon yow la yow ban ñaan ngay ñaan bu doon ñeent lañ te yow yaa leen ñeenteel yow ana looy ñaan bu doon man mii la lan laay ñaan bu doon yow mii di ma dégg yow mii di ma déglu mbokk mi bu doon yow la yow yaa leen ñeenteel yow ban ñaan ngay ñaan loolu mooy sama laaj ci yow te maa ngi xaar ci yow tontu foo mën a nekk maa ngi xaar ci yow tontu mbokk yi hadis bi danañ ci jële mbir yi di ñëw bu njëkk mooy ñaan yàlla ci jamonoy jafe-jafe addu'a indal kurub ñaan yàlla ci jamonoy jafe-jafe ñaareel mooy atawassulu bil amali bil amali saalih doomu aadama bëgg nañ muy jokk ci yàlla ci ay jëfam ju baax ñetteel mooy ngëneelu way jur way jur ngëneelam ñeenteel mooy ngëneelu ngëneelu ngëneelu fegu fegu ci yàlla tabaraka wa taala fegu bañ a def lu bon juróomeel mooy fadlu samahati fil muamala ngëneelu jëflante joxe kóllëre mbokk yi li moo doon waxtaan wi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah